mi laay woo nii faa mu woo yaayam dénk koy kàddu man boos xaw ma ku koy may visa boos xanaa xamoo sa kanam gi day tiital tubaab bi yow sa kanam gii rek mën naa refuser visa sama yaay man la Adama ma ngi lay woo sànq ba day jotuma la defal defal si débrouiller nga woo ma léegi nag sénégalais li ma leen di santaat mooy ngeen jàpp ci ngeen wax ak boos mu toog bàyyi ummi mu dem faju ji balaa visa bee jeex na nekk nit wala mu nekk dof ay mbokk ummi dinaa leen contacter dinaa woo yaayam dinaa woo ay mbokkam dinaa woo famem ne leen boos na toog na ummi dem faju ji boos wëppul dara jotu ko ummi la tànkam bi cëkk mais doomu xaraam ji boos lànk ne tànku jàmmoor bi di wér boos yaa téegal sa nday tànk ummi bi lu mu gën a cëkk ba ñëw ci lëf li nga jër yaa bon yaay doomu xaram boos yaa bon fi mu toll ni tànk bi wér anacé wala ndax sa wërsëg day tëju da jaw ndayam dootoo ko amati lafañ yi ngay topp ak borom bëddi patt yi ah laago yi nga ko langal yaa bon borom cër yu manqué yi rek doomu xaram nga nangu woo liggéey moo tax boo sa bon nga ne ummi du faju ji te visa wum génn da koy topp far force foo jëm loola daal da ngaa feebar da nga am problème mu koy wala sa dambal bi daa dugg dara jotu la yor ay tànk yor ay xuur di koddal yori bët yori loxo sa jëkkër sa jabar tànk bi jëkk nga lànk ne du ko mottali yaa bon yaay doomu xaram boos mais tamit jabar ji daa neexut a faral ku ñàkk jom la bala maa dee nag xam nga lan moo ay ñu def seen vidéo yooyu noonu yaakaar ne ñun la di konkoli déedéet seen bopp ngeen di konkoli wu leen ñu de ñun am nan ay tànk am nan ay loxo macha allah suñuy loxo fu nu war a ngeen ñi nii dañuy yëngatu comme ay sax gisee ñu nii suñ tànk yaa ngi nii foo ko yëngal mu dem gis nga suñ pooj yi li may ndaw ndaw ndaw yor na tànk am suux manqué wun yàpp de déedéet suñu gerees mën na suñu yax génnul yën la seen yax génn ngeen am pare la mu tànk yën la ni jàppale mais ñun ñu ngi yëngatu nice mouvement très bon dara jotul kon kokkali leen seen bopp ngeen di kokkali seen bopp ngeen di kokkali de non nan waxante dëgg yenn yi danoo jàpp ne ñun la ñu naqaral bu Sénégalais yi waxee ba pare ñu def seen i vidéo pour ñoom ñun la ñu naqaral déedéet seen bopp ngeen di naqaral ak gàcce gi ngeen nekk yéen ay wàccee seen crédibilité ñàkk seen crédibilité mais pas ñun seen bopp ngeen di naqaral pas ñun. desafisciti senza scarpe e bay bëgg a dee boos boo ko waxee mu def ak tuñam yu ràcc yi na garabu darkase kanamam gi na bàmmeelu sa euh, euh, kii bàmmeelu nag kenn xamul lu muy nuróol yow sa ñaawaay bii danañ la tiim di la may visa yow boo demoon ba visa euh, itali boo ko ñaanee tubaab bee lay xool sa kanam gi rek refusé de visa la tudd sa kanam gi rek mënut am visa dan lay xool da leen di tiital tubaab yi danoo gaaw a tiit. te yow boo fi ñëwee mën nga tiital xale tubaab bi traumatiser leen ba duñ ñemeeti seen yaay yi soxlawul la tubaab yi bëgguñu la ummi la ni jël pour faj ko bàyyil kii mu faju ah bàyyil kii mu faju ji ngir yàlla nga ne ko doo ko bàyyi ummi ni mu ñàkkee fulla te ñàkk kalaas moom it comme koomul ay mbokk kenn xamul lii lan la léegi nag kii mooy Malick Naar sénégalais yi Malick Naar jëkkëru Amina Poté jëf jël dafa génnoon mu ne ko da ko yoreel xaalis lu mit ci ay lu toll ci ay vingt mille euros wala lu ko ëpp léegi nag ñu génn jëf jël saaga saaga ñu waxante lu ñaaw léegi nag ñu demoon tribunal nag doon àtte tey la woon àtte gi ba noo demee tribunal jëf jël dafa déggul anglais moom moo porté plainte Malick Naar. mais mun ta wax ay anglais da doon wax juste bi ne ko dimbali ma ngir yàlla nga wutal ma ku ma traduire maanaam ñàkk anglais bu mu ñàkk dégg moo tax ñu renvoyé projet bi Malick Naar nag xam nga moom dafa dégg anglais fa la nekk naan leen wees gaaw nañu skool seen ngi seen ma xaw meen inoo laas biir ni scraps niin bu ko defee jëf jël tiit xamul fu muy taxaw mu neen dimbaleen ma ngeen wut ku ma traduiral ndax mënuma àngu ñoom kese jëf jël yow nan ngay plante nit te déggoo anglais yaa dëgër fit nan ngay plante nit te déggu anglais yow jëkkëru jàmmoor ji nga ne moo la yoreel xaalis dafa sàcc sa xaalis ngeen dem ci yoon mënoo faa am ndam déggu anglais de plante waat xam nga ne Malick dalay lekk Malick nga xam ne buy wax téléphone sax gis nga yee à sonné te man li ma jaaxal mooy jëf jël saa yu nekkee laay fu sëñ Bada gars yi dégg ngeen ko ni muy soo soo elu soo am nekkee soo la yem yow nekkee anglais bu baax déggoo ko ku ci dem Angleterre ña ku ci dem Amérique ñaari fan nga fay def nan soo cott ndayi soo yow soo boo xam ne déggoo gat lan mooy soo ñaari yoon ngay dem Amérique naan soo soo te déggoo gat moo tax tey Malick naa rey na la de war bi gans li nga xam seet man ah suñu ni nga xam ne si waaw Malick naa classique waay nday Malick moo dégg anglais tey de rey na ko ak juge beeg tribunal bi jaxase na foofu jëf jël tiit jëf jël nag da doon njëkkante mu dem ci biti xam nga jëf jël nu def ñi jóge Ndigoro gaa xam ngeen ko ñi jóge Ndigoro gaa ñaari ponkal yooyu te ñu lelu xaaral ma xool ndax yor naa seen photo lépp moo war a leer moo tax Aïssa Aïssa bu papito mais Aïssa bi lu. nam naa la de man yow rek laay topp. lépp jàmm. lépp jàmm kay. naka dëkk bi. maa ngi si jàmm man dama laa bëgg yow Adamo. waaw jërëjëf jërëjëf Aïssa kontaan naa. wallaahi yow après après naa waxtaan dégg nga. cokk yu may buddi nii fi mu toll nii waxtaan bi du waxtaanu xale daa am ay cokk yu may afurwaa maa ngi ñëwaat ci yow. Euh, gars yi amoore abasa bo gay yi si si un poquito gars yi euh, bëgg a expliquer foofu mooy. jëf jël may ma jël dafa dem plainte Malick Naar ba pare déggul déggul déggul anglais Malick di leen xaw a rey xam nga booy yi jógee Nicaragua xaaral ma woon ndax ñi ngi fii booy yi jógee Nicaragua ana ñu ma xool ndax ñi ngi fii booy yi jógee Nicaragua ndax ñi ngi fii waay am na ñaar ñu mu indi ñu jógee Nicaragua est-ce que seen photo yore naa ko fii dinaa leen ko wan ñaar ñu jógee Nicaragua ñoom la àndal ne leen ay journaliste lan jëf jël ñoom la yóbbaale tribunal borom nel boo xamante ni comme tefesu yaraax barki Serigne baaba Sy nee na ñoom la àndal pour ñu jàppale ko léegi nag ba procès bi jeexee jëf jël da def vidéo pour dugalal ko Sénégalais naan leen waaw salaamaaleykum comme na Kaliphone defoon di dul rek naan maa ngi ci tribunal bi tey lan ñu waroon a àtte Malick Naar Malick fekk ko fa ne ko sa nangam taanu nday eh wax naa la foo ma topp ma def noonu sa nday wan ko ne ko sama sek attanoo ko xolal vingt mille dollars lay am par mois man foo ma woo wuyu la dëgg sa ndey man damaa rus sax jëf jël taxaw naan soin soin tey jëf jëf déggoo anglais nit Malick Naar yàlla moo ko teral may ko xaalis bu bëri mu ciy dimbali ay nit sëñ Bada Kéemaan mii sëñ Bada mii doon wax nii xam nga ñaata la ko Malick may cinq cent mille sëñ Bada mii cinq cent mille la ko Malick Naar yónnee ñaari yoon sëñ Bada Kéemaan mii sëñ Bada xam nga dana toog ba dee te du am cinq cent mille cinq cent mille la ko may ci live taj cinq cent mille karaj la ko dugalal Malick day jël ay millions di ko jox ay nit di jàppale ay nit man yàlla dafa def muy sama xarit lu muy def suba ba ngoon xam naa ko barki Serigne Babacar si duma ko far ci dara lu muy def suba ba ngoon xam naa ko ba ma woowee taj ne ma sëñ ba Bada Kéemaan de amoon na ay jafe-jafe wax ma ko ma may ko cinq cent mille ma ne ko wuroo ko ma may job ndeyam ndax sëriñ bu gëmul dëjjaw ndeyam la sëriñ bu tekkiwul sarab ndeyam la sëñ Bada Kéemaan da daan dóor ay pëndaxu buy la daan yore ay garabu darkase da ko daan dëbb def ko ci ay mbuus di ko jaay yore bitiku mbagam man mii la njëkk defal vidéo naan ma salaam maaleykum maaleykum salaam Adama ma ne ko ñëw ne ma nu may def ba siiw ma ne ko ah sëñ Bada boo bëggee siiw daal lenn ngay def muy lan ma ne ko waxal ci Adama mu def vidéo am toog naan salaamaaleykum tuf Adama mooy leen ko am lu ko yàlla may vidéo baa ngi fi xaaral moo Fernando sax mu yónnee ma ko ma tegal leen ko loomul preuve baaxul cottu ndayam xamu ko xamul lëfal ndayam ba mu defee loolu yónnee ma vidéo bi. ci laa ko posé nag da daan fay de ay trente cinq mille trente mille la ma daan yónnee pour ma koy jàppale pour mu siiw ma boole ko Babacar Diaspora wa gars yi ñu commencé ko da jël ay interview bitiku mbagg la yoroon daan dóor mais ndax moom moom sax moom sincère na ndax sëriñ bu ko daan yëg mu ne man moom wax dëgg yàlla xaw ma dara damay dóor rek ba mu demee ba xam ne loolu doxul la jaay bitiku mbagg ba nag bàyyi pëndaxu bu yi xam ne dóor doxul mu dugg ci saaga nday yeeg wax yu ñaaw pour ñu koy fay waaw ku dugalal dix mille mu saagaal ko kenn. moom tekkiwul sarab ndayam ba ma ko waxee dama ne bu ko def soo comme que soo ngee di wax soo Malick Naar dafa nekk nit ku baax waa Saint-Louis soxlawul ministre soxlawul soxla soxlawul président mooy seen lépp abano SRS def na vidéo di ko gërëm xam nga lan moo a lool parce que Aba dafa dem kër Malick Naar mu teral ko ñoom ñi ñëpp ku ci dem këram dalay teral Malick Naar Aba dafa dem këram mu teral ko seq moom ay teraanga yu mag. moo tax ku toog ci télé bi da nga koy sant ñoom ñëpp nag la seqal teraanga Malick yàlla may na ko de maanaam gars yi dañuy mais am na lu ko sunu borom may léegi nag jëf jël boo fi nekkee mbër mu retraité mbëree ba sa séddi su pooj ji dagg nga dem Amérique di di di di di di di koo xamante si nii Amérique da koo téye non yaa ngi font yaa ngi font quoi waaw yaa ngi font de xoolal ñii nekk mi Nicolas Goura xaaral ma leen. ñii Nicaragua la nekk ñii borom lel bii demee na lëfu kaña ñii ñii la jëf jël àndaloon borom lel bii demee na fa am buut di fanaan ñii la jëf jël àndaloon pour ñu doon ay journaliste jëf moo feebar mu ngi nii de ñii da la àndaloon xool leen Nicaragua lañ jóge Nicaragua lañ jóge ñii pour ñu doon ay journaliste waaw waaw xoolal ATM a ngi nii ATM moo may bind nee na Malick may na ko cinq millions ATM nee na Malick Naar may na ko cinq million ATM nee na Malick Naar may na ko 5 millions Malick xaalis da ci ku fo Malick ku ko dir mbagg yaa ngi ci problème jëf jël da ko yóbbu ci yoon amoon na jëf jël da ko yóbbu ci yoon ba pare munu ci am ndam parce que déggul anglais parce que show du anglais. man jëf jël bala maa dee mu toog ci ci fu sëñ ba danaan soo euh, Malick am na vingt mille soo ndekkee moom soo la yem yaa ma rusloo moo tax Malick naar ba mu ko fekkee ca kii ba muy defi video moom moom tegal na ko lu xotteeku soo Malick da lay lekk de mooy leen Malick du nit de ku ciy geer ak moom danga koy tëgg du nit Malick nit ku baax la dana koy tooñ Serigne Ndiaye mii Serigne Ndiaye sëriñ njaay mii gis ngeen Serigne njaay kii moom mooy jàppale ki nga xamante si nii moom mooy jëf jël ñoo def seen coalition ak ku tudd Momar Ndoye Momar Ndoye nag danaan génn ak Amina Poté daka daan doxaan Malick naar ko fekk ci kër ga ne ko tojal sa cott nday génn wax jee fi nekk de mais kenn ñemewu ci malik Malick ku ko tooñ midi une heure mu toj sa cott nay gaa yépp a ko ragal Malick am dof la de ay goon lay doxantoo fi mu toll nii dafa taxaw ci bunt bi doon saaga kii jëf jël gis ngeen jëf jël ni mu def tekk la def croisé les rabats bu waxoon benn baat Malick da koy noq Malick gaa yi ñemewuñ ko de vidéo lañ ko ñemee vidéo la ni teg mais Malick bandi bu mag la ku ko ci tooñ mu dëgg sa day ñoom ñëpp ñu ko jox cër Malick yi ñemewuñ ko wax jee ne nii rek ku mu jàkkaarlool bu saagaa sa day doo wax gis nga jëf jël ci kanamu tribunal bi la doon saagaa day mu ne nem Malick gars yi ñemewuñ ko de. ku ko ci tooñ bu jàkkaarloog yow nga wax mu wax dalay lekk bindaaxi Malick di ab dof deretu américain la yor Malick xanaa xamoo gars yi ko teg sax sénégalais sénégalais sax nuruu ko barki Serigne Babacar si américain annonce la gën a nuroo non Malick ndaanaan la Malick booy buy wax anglais lamiñ du laal suus daanaka kaamel ñu gis la moo gét sax da bandi bandi lu moo gét gis na bàyyam Malick naara ngi nii xam nga moo danaan toog laay fam naan nii so waat gone yi croisement pe mais Malick da koy faxas laadu gone yi nga si kanam bi baar yi nga score yi nga mais ah fine ah, ni nga kii nga bëgg koo yóbbu ci yoon mun tane jëf da ngaa daanu déggoo angale mënoo yóbbu nit ci koo déggul sa waay déggoo lànk bi yow mbër nga lamb lan la xamee ah Malick dafaa yàgg munoo séq ak moom kaa bi Malick daal sama waay la ku baax la te ñëpp a ko gërëm barke Serigne Babacar si ñëpp ko gërëm waaw Malick kenn du moom nit ku baax la waaw léegi nag jëf jël jëf jëf jël jëf jël a ngi ma jëf maa lay woo léegi ndax maa ngi woon live nii damaa gis ñuy saaga sa ndey nga ne nemm rek lu waral loolu moo taxoon ma lay woo waaw ah, jëf da ngay font nag ñuy saaga sa ndey rek nga taxaw fi nga toog Malick du nit de Malick ku ko muyul xam waaw ah. deux minutes ba yow na nga fi dugg naan jëf Jël yaa ngi may dégg. waaw man la Adama lépp kóol. waaw mais yow tey lu tax ñu lay saaga ndey nga ne nemm rek. <laughs> cey jëf man daal yow jëf jaaxal nga ma quoi yow kii nga ne dalaa yoreel xaalis. mu fekk la fi nga taxaw ci kanamu tribunal bi di la daggal ay ndey. waaw mais xam nga fii moom xam nga fii dëkk yoon la. ah. te dafa yoon nu muy doxee quoi comme man man maa ko yóbbu ci yoon. day wut benn prétexte bu mu am si man te du ko am mooy dina la jéem a saaga wala dina la jéem a def dara pour nga laal ko rek mu daanu xool police bi da xam nga te loolu man du ma si fekk ñu ngi dem si yoon alhamdulilah amul problème Serigne Saliou seere na ni dama ni woon code bi bu paasee damay bàyyi lépp mu sedd mais dama koy topp jusqu'au bout. mais yow mais yow mënoo koo topp xam nga luy problème bi jëf yow da nga dégg da war a jàng anglais anglais bi moo des.

ma yaakaar. Hmm. soo sa jarbaat sa jarbaat sama xarit la sax tey ma la saaga sa jarbaat sama xarit la quoi Issa te Issa maa ko war a takk mais yow danga war a xam ne tamit déglu ma jëf dama lay wax benn affaire. déglu dama lay benn affaire Malick Malick wuyu ma léegi dañuy waxtaan en tant que man ak yow Malick. saaga euh, ma problème. waaw waaw waaw waaw waaw dëgg la ah, dëgg la. dëgg la dëgg fi may ñëw ak fi may ñëw ak soo soo fi may ñëw ak wuy ma soo fi may ñëw ak yow mooy euh, gis nga jëf danga war a xam ne soo yaa ngi may dégg. Euh, waaw yaay borom soo moo tax yaay borom soo wuy ma waaw xam nga léegi wuy ma déglu ma rek déglu ma. gis nga nag jëf danga war a xam benn affaire Malick Naar kil la ci Amérique kilifa la de kilifa gu mag foofu nga nekk fi doon ni xanaa xam nga ñu bëree ngi ànd ak yow ni ñekk ak lekk nan teraangaam ñu bari defal na leen affaire Malick dafa riche de Malick dafa am xaalis te gis nga bu ma la waxoon Malick fi muy jaar bay lijjanti xaalis di ko am keneen Sénégalais bu fa jaar day dee. mais yow dafa naa yow jàngoo Malick da nga ñëw rek dugg ci moom xamoo ko bu baax waaw soo soo daal instant bii nii soo yaa ngi may dégg allo soo soo yaa ngi may dégg. ok soo léegi nag soo xoolal maa ngi lay defaat signe teel sa téléphone. jërëjëf soow léegi nag kii mooy jëf jël soo xamul Malick dafa ñëw dugg ci moom <laughs> jëf yow looy de damay kat <laughs> jël soo moo nekk noonu waaw soo rek la dégg Malick daanaan la de Malick gërë xaaral moo Malick sax ndax naa ko jot Malick sama waay la su may live du ko tàggu. Malick xam naa bu gisee sama appel dina ma woo xam nga man bu may live du ma kenn damay ñëw rek wax sama sama débat ndax man kenn du ma live loo wala mu naan ma waxal ci nit man lay sentir ma wax ko waaw Malick yaa ngi seetaan live bi wala yónnee nan la ko maa ngi la doon woo pour waxtaan ak yow soo ma làkk angale waa ni nga sii ni nga naar borom Amérique kenn du yow Malick naar borom dëkk bi Malick daal barke Serigne Babacar Sy ku ko mayul So I wanna gay nigga. <laughs> no, Malik Narmudi Gangale, what nigga go and lama make a park? Sorry, you sham fuck beyond. You know nigga Karen, girl said yo mum go angale dofi yaga wahal. <laughs> Gana mer, gana. Ah? Gana mer nga mer bi wax yaay boss, yaay umi. nag aadama na nga waroon coupé. Hmm, daa ragal daa tiit. wuy ma ma may ma ma may ma ma jël Malick. mais sénégalais yi milk comme que jëf jël génn na milk moom moom moom moo doon woo xam naa dañ ko yónnee live bi ndax moom du ma seetaan moo doon woote nii léegi allo Malick Malick Malick waaw Malick maa ngi ci live waaw maa waaw maa ngi si jàmm maa ngi ci jàmm dama doon live léegi doon doon wax ci ci kaa bi léegi jëf jëf jël woote moo naan ko soo déggoo angale di yóbbu ci yoon ma maa ñëw na saaga sa ndey ma wax ak moom mu ne ma noo dëkk bi nii la demee ak nee la demee waaw léegi nag ma doon la woo quoi ndax yow am na loo ciy sànni Adama ma ne gis nga sa waa du ma sa tudd turam quoi parce que nawloowu ma ko. jaru ko de. xam nga nit boo xam day fen. Mhm. day taxaw di fen di tuur di naan ay ah Malick Naar moo laajte nañu renvoyé moom déggul anglais <laughs> xamul what time is it comprendre nga li ma la man kii xoolal sagaru nit la ci man li ma ko wax rek ak xasawaayam xam nga li la moom dina bëgg génn ci li mu teg parce que xam nga li la waaw dafa naan dama ko yoreel trois mille nee naa bu ñuy sukk ma may ko cinq mille dollars ma jox ko trois mille tegal ko ci deux cent deux mille dollars ndàmpaay billaay walaay tallaay su ko defee léegi léegi ma jox ko cinq mille dollars maa mën bàyyam bàyyi bàyyam yaa ngi dégg kii dof la kii bu mu ñëwee ci dëkk bi xolal sama tunguru la woon ngi comprendre man moo ah. ma dof xam nga ñi muy àndal ak ñi muy waxal ak ñi muy jéem a xeexal ah bëgguma saaga quoi. non non jëru ko jëru ko. kii xam nga lu muy niróot mbonaat mbonaat loolu xam nga jaaka bu bon bi ak yéen ñoo war a may visa ñii xool visa yow bii duñ ko jëriñoo parce que xoolal amuñu xel ay dof lañ ay xelu jën nañ yor bu toogee di waxtaan soow you understand you understand loolu rek la ñu xam ndeysaan xam nga dof ci bon yi xam nga manaabar la ci dëkk bi manaabar am nga manaabar nga jógee Sénégal manaabar ba tas ñëwaat fi nekk manaabar xam nga. mais Malick yaa ngi wàccee bu mën a war kii boo waxee ñu la ay Baay Faal laa ay man lii laa ay mooy loolu mooy Baay Faal. yow da ngay nekk góor yàlla nga te moom live bi soo moom anglais soo rek la ci xam. ñëw ba Amérique xoolal ñëw ba Amérique di takk ay njël di dof dof lu xam nga fii américain yi they don't care about those kind of shit xam nga bu ñu ñëwee nekk naan dañuy bàyyi paalu dañuy nekk dof dof lu soo gën a jaxas ñii man xoolal maay seen baay yaa ngi dégg dañ may jox cër baay par force wala ma jël ko waaw ah di gis ngeen li ma leen wax Malick ga leen gën a dee ëpp leen fit gis ngeen Malick Sénégal yéen xamu leen kuy Malick ku baax la du tooñ te daa nga am nag dugg ci live bi may leen ku nekk cent mille francs du dana ci moom mën na ko de quatre mille personnes yii di seetaan yépp Malick mën na maa woo à tout ne ma mayel ma ñëpp ku nekk cent mille ak am xaalis mais gars yi ñu ko de gars yi xam nga gars yi ci lan lañ ko yebe ci caméra ñuy wax mais barki Serigne Babacar Sy ku ci jàkkaarloog moom mu noq la Malick ay gon lay doxantoo Amérique da ko maîtriser dëkk lakk bi Malick nit ku baax la Malick bu ngeen xamoon teraanga yi mu séq ak gaa yi Malick nit ku baax la de Malick ku baax la ku mën teraanga la mën nit du dugg ci ay détails barki Serigne Babacar Sy Malick booy beneen affaire la waaw soo moom xamul fu muy taxaw quoi soo wérul xaaral ma génnee soo ndax kii wax na dëgg kanamam gii comme kanamu munaat day tiitalaate xoolal Malick ni mu jantale xanaa xamoo Malick naar gars yi koy jaawale sénégalais mais nan waxtaane gars yi kii ba ngeen ko njëkkee gis te ngeen ko sénégalais maanaam bala ngeen ba ngeen avant ñu koy avant muy takk Amina ñu koy dugal ñoom buuse ngeen gis vidéo yi ndax sénégalais ngeen ko tegoon man mii teguma koon sénégalais de barke Serigne Babacar Si Malick doo sénégalais yi ñu ngi koy doog ràññee muy doon sénégalais kenn tegu ko woon sénégalais kenn. waaw man mi xaw ma ne woon na sa sénégalais la allo Milk allo sama benn tante sama mag sama yaay bu tudd Rama. waaw naa ànd moom ñëw ma may ko xaalis mu jégalu moo gën ci mu ne. ah ok am na benn tantam. affaire yi neexul. xam nga ñoom ku ciy fayeeku benn cinq cent dollars wala six cent dollars nga def ni yaa ngi meeg waaw non sama tante man sama mag waaw sama yaay rama rama si waaw rama léegi na dem ci kooku ànd ak kooku parce que demoon na ci kooku di waxtaan waaw mais man maa bëggatoo waxtaan yaa ngi dégg mais jéggal ko rek jéggal ko rek teral ko Malick yow da ngaa baax moom may ko xaalis non non jéggal ko jéggal ko teral ko non waaw Malick dama bëgg man dafa am fu ma toll. waaw. Ah, moom moo may reculer fii la toog ci ay live naan man yoruma passeport. waaw man passeportu deux ans laa yore. non ay wax la rek. Sénégal non lépp ay fen la quoi. waaw loolu xam nañ ko. xam nga dafa dafa duul ku hmm. koy naan kuy hmm. la xam nga doo gis nga nit loo lu nekk ci kaw àddina da ngay xalaat bés dina ñëw di nga wéet ak sa bàmmeel hmm. ngay wax démb rek dafa génn ci tribunal bi di fen gaa yooyu dofam yooyu jóge Nicaragua ñoom au lieu ñëw ci dëkk dé démb tekki ñuy naan man dañ may dénigré ñëw def seen. ñu ko xamuñu la moo tax xamuñu la taxaw ci tribunal bi xamal la. xamuñu la moo tax gis xoolal ñoom dañu dagg affaire bi parce que boo déggee vidéo bi sax am na koy naan bul ko dugal bul ko dugal. bul ko dugal waaw mais démb li ma ko woon foofu xoolal du ko mës a dugal. mukk mukk gis nga jëm xoolal xoolal reewul. dof la xam nga dof xam nga ngaaka seer yooyu. Uh-huh. ñëw Amérique la ñu commencé tëdd ci ay climatiseur commencé taal ay lamp xam nga ah loolu la. so xam nga loolu laa uh-huh. gis nga kii. waaw ah. dëkk boo ko xamoon booy comme waañ man damay jox cëru ay par force. wala ma jël sama cër ci moom. waaw. du ma ko dama ko wàcc dara xoolal du ma ko bàyyi gis nga. mais mais teral ko rek teral ko teral ko dimbali ko rek Malick yow da ngaa baax teral ko. non man dama am njaboot dama am yaay dafa am man dama am image boo xam ne am gis nga jëf jël. xoolal naa ko tegal lu métti ci dëkk bi du maa la ko wax. naa ko ko tëj ko muy fen naan police dana la takk minute bàyyi la. maanaam dañ ma ma après laaj. non non jéggal ko ay kat la waajal gis nga xoolal fi ma jëm moom ndox amu ko jéggal ko man te mos a xoolal te la moo kii nekk ci ginnaawam di ko yónnee ñoom. waaw Serigne Ndiaye Momar Ndoye ñoo ñoo gën a bon. mu ngi noonu Momar Ndoye ñoo gën a bon. dina xool gaa ma si gën amatul lu ma ciy bañ. du ma ciy mhm. reculé salaamaaleykum. Mhm. te gis nga jëf te xoolal. mais commentaire yi ñu ngi ñaan commentaire yaa ngi ñaan rek ñu naan ñu naan na ko Malick jéggal. non Adama xoolal déglu ma man ma dugg ci ay live du ma dugg gis nga léegi. nekk lii du ma ko bàyyi. Mhm. parce que sama image ñoom doomeraam yi duñ ko yàq. teg dara ci dëkk bi. amul wax man du ma fóon benn loxo nit. man du ma sujootal benn nit. du ma raamal benn nit. sama ndari bi ma yaakaar ci àddina bi tax ma nekk li ma nekk tey. yaa ngi comprendre. Mm. man kooku laay mm. jaam. Mm. mais du sëriñ du góor du keneen. est yaa ngi comprendre ma la. dama am jabar dama am ay doom. xoolal du man nangu ay imbécile toog di naan man man 3000 dollars man may maye mille dollars ci ay secondes mu may naan man dama ko yoral 3000 dollars. kii jëf jël ñi may dégg ñu nekk Amérique xam nañu boo fi ñëwee en âge émigré amagoo këyit amoo social sécurité munoo liis téléphone. ci store yi ci boutique yi mënoo fa dem am téléphone. temps yooyu Galaxy. Samsung moo génn. trois caméras muy dem Sénégal munu ko jënd sama mm. gain la ñooy ànd ma jëlal ko téléphone ma liis téléphone bi. Mm-hmm. ma ne ko two thousand dollars nga may fay. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ma jël montre Invicta mooy bu mu takk. ñu mm-hmm. ci TikTok am ak yëpp mu takk montre bu ngand boobu noonu. Invicta baabu silver bi ci man la ko jëlee maa ko jox lii moo indi suñu diggante léegi nag comme que gainam dama ko dàq sama kër est-ce que waaw waaw. dama ko tudd Momar Ndoye. Momar Ndoye doomu xanaam la waaw ñoom ñu formé seen ASC moo fa ñëwoon sur boobu di démonter lal yi di démonter affaire yi di affaire ndooy kooku noonu tuurkat la doomeram la. Mm-hmm, mm-hmm. bi may takk Amina da ko woo di ko tegal ci man. xoolal loolu xoolal loolu. man damay chaque jour ñoo lay toj. seen tata yooyu affaire yooyu xam nga. xoolal loolu te ñoom doomeram yi xoolal. Mm-hmm. fii laa leen fekk ci dëkk bi maa gën seen ndey gën seen baay. xoolal loolu maa ko dugal. so xam nga lu la xam nga ñoom ci temps bi la ñu nekk fii di jaay ay saak bu ñu gisee police daw. you know you want a bag you want a bag you want a bag di jaay ay fake dégg you want a bag you want a bag man exactly loolu lañ fiy def you want a bag rek use sama brand xam nga la man xoolal Sénégal bi ma nekkoon j'étais fonctionnaire j'étais dans l'aviation militaire sénégalaise gaz laa nekkoon foo xam ne ay intellectuel ñoo fa nekk kon kii parle réew ma rek kon kii parle dañuy noppi ma noppale leen ay dooméram la ñoom ñëpp ak seen ay ay motherfucker lañu yaa ngi dégg mm. gis nga xaw ma bu may dëgg xaw ma xoolal daan lekk lëfal ndayam ci dëkk bi. man ëpp naa def ëpp naa def Malick maa la gën a rew parce que ñoom yoruñu Malick ëpp naa def dëkk bi bëgg ma yàpp ëpp naa def am na ko dugg tey ci ci ci live wax naan xam nga kii maama mooy diw maama mooy diw. Mm, du dëgg doo dañuy fen rek dañuy fen rek man li ma ko moom bu ñu fa demee man fu may fanaan Jobjol bàyyi mënu fa fanaan. dëgg la de. Jobjol na lekk la sol ndeyam. non ëpp naa def yaa ngi dégg. ëpp naa def maa def dama leen di maa leen gën a réew. Mm, mm, comprendre la wax. Mm. maa leen gën a boo maa leen gën a jantal. waaw gis nga ko de boo koy nga def jantal. yaa na ñëw ci man. ñemewul la moom ñemewul la ñemewul la. xaaral xaaral yow booy xoolal naf is naf ñii naan dama leen yoral bor na indi ku ci ñëw ma Dakar sa ndey boo indiwul preuve ko man dama leen di dimbali di leen may sama alal mu naan man dañ may fay pour ma wutal leen nekk man dama am jot waa Nicaragua man. Mm. man I don't have time for the shit. waaw for the shit. man man man man fuck up wala I will fuck I will fuck him up. waaw comme tooneeram la xam nga. li nga boobu taal di nga seet. dégg nga boo ko loolu. waaw man am am daan fa di shit. dama sonn xoolal for the shit nga nekk koñ. fii laa fi nekk di def lu nekk. yu daal biis koñ nga. laa fi nekk di def lu nekk xoolal di maye sama alal di leen ko jox su ma taxawee di maye sama alal sax ñu naan ma pourquoi nga koy maye fii doo ko yóbbu. ci association man maa ko liggéey. xam nga kan moo ñeme génn ni gis na ma may jaay drogue. kenn kan moo ñeme génn ni gis na may sàcc. kenn am na benn gel temps yi gel bi dafa génn naan Malick Naar changé voix bi. day dul amal sama copine xaalis. Mm-hmm. comprendre nga. show man Malick Naar ah dafa yoreel sama copine huit mille day fay ay jigéen ay mille mm. dollars pour ñu koy màccam. Mm. doo mujj tege yooyu. you know amul seen morom de nañ ma bàyyi ku ma ci bàyyiwul naa Dakar sa ndey ba tëj. yaa leen gën a dof de. maa leen gën a réew maa leen bi. waaw xoolal du ma tëddee damay nelaw ba yandoor. Hmm. bu ma yeewoo xëy laa am man man niroo naa la koy nekk Amérique di garder ay building. mukk mukk mu ne Barra man du ma moom. mukk xam nga na toj la fal ndeyam li ma koy wax nii nag xoolal heure bu tafet a sama photo dama ko defal lépp loo xam nga déggoon naa su ndeyam bi paa dinaa. non ëpp naa def. roog dayu ndeyam man maa leen gën a <laughs> man xoolu ma kuy wax wala man man ku bëggul wax man kattan you know saa ni ko bon. waaw ci kaw ba ci suuf dafa doy ku bëgg wax ak man nga wax ak man ku bëgg wax ak man nga kat sa job ndey. you know man tudd ba leen. pom ba la damay ñàkk a jëriñu yàlla moo ma teral ku mu neexul nga doxaan sa ndey tu n'as qu'à aller boire la mer. Mm, xam nga. Mm, mm. su ma la de alors su ma fa. waaw ak rasul la ay tëmb yi nga xam ne gars yi da ngay waaru. tëmb ma gars yi depuis boobu ba léegi xam nga tëmb ma yore kii dafa yore kii di duul. dama ci na jeex na kuno do calm calm down calm down calm calm calm down calm down my brother man. yaa ngi down is man yeah gaa yi la so. non moom doo seen morom. dan may bàyyi seen morom de. moo tax ma woo ko sànq ma woo ko sànq muy lox loxal woo naa ko muy lox waxal ni muy waxee rek di lox loxal di Eh, yow démb boo xoon ma Dakar ndeyam. waaw ma xam lu ah yow man eh man ngay wax loolu. Eh, boo xoon démb ma lekk. man man ngay wax loolu. ah kooku maa ko xam gaa yéen a xamul mais man xam naa la. comprendre ma wax. ay la kooku mën nga koy wax. yow xoolal barki salaatul fàcce yàlla bu ma gisee sama ndey. moo fii la ma woon yàggul balaa affaire yi mu may ñaan mille mu ne barki salaatul fàcce yàlla bu ma yow xagg daa ilaha illa huwa. moo toog naa ma dama la yor man a may sa ndey mm. may sa baay doomu mm. tàcc. dëgg la de. xam ne bu ñuy balaa ñuy tukki Sénégal gaan un an la ñuy toog pour dajale benn cinq mille dollars bu ñu jëlee argent de poste mille kenn du ci mim réew. dan may bàyyi xoolal dan may daal yow lan àndal ñëpp a kontaan ci yow. waaw gaa yi ñi commentaire ñi ngi naan nga jéggal ko ñi ngi lay may ay kër. waaw. milki ngi noonu coupé na xam naa yaram bee tàng laa ilaaha illallah down in nigga city fall nigga come nigga scam bend down all esteem nigga come boy nigga shout maanaam anglais yii Malick di làkk moo xajul ci bopp ci bopp mbër nan waxante dëgg mbër yi yëfu dof lan xam mbëre dóorante ay ku dem Amérique toog i du anglais nit il faut boo yóbbu nit ci yoon da nga war a nekk nit jàng xam droit xam xam maanaam non man gars yi dañuy font quoi dañuy font waaw boo leen waxee ñu naan ku ci am dem Amérique ñaari weer ngay def naan soo ku ci dégg ma naan soow Why shut up now you so? One give a bang niggas gonna want to go be on a counting gonna corner. Yo yo ay angale yu baax. Mais so kese. So mooy lan? Luy so? Luy so? Non non waay. Da ngeen di font rek. Da ngeen di font. Ah. ah waay